tey bi nag tey bi ñu def nii def ñu permettre ñu préparer gàmmu famille omarienne bi euh, tey nag am nañu comité d'organisation baa ngi fi euh, waa kër famille omar bi nekk fi sëriñ bi jiite ko ànd ak vraiment équipe bu dynamique ak les services de l'État pour ñu seet naka la ñuy def ba taxaw ci ba jour gàmmu bi problème du am ensuite que béréb ba dafa nekk chantier dañuy tabax jumaa ji donc am na ay disposition particulière yu ñu jël mooy lan fexe ba chantier bi nga xam ne moo fa nekk pèlerin yi duñ ci accédé te it retard bi chantier bi am ñu fexe ba du am incidence